waaw kontaan rek parce que boo xoolee tey présence nit ñi rek fierté ngay am je très fière de de mon parce que dafa nekk koo xam ne ki dafa bëgg élevage fii la ko def si xolam surtout aussi qu'il aime le président vraiment c'est il est comme un grand frère pour lui daka bëgg si xolam macha allah donc su amee tey jour bu mel ni mu nekk euh, sargal. président présence bi mel nii macha allah euh, vous avez vu le monde qu'on a aujourd'hui donc ça c'est une fierté vraiment je suis très fière de lui et je lui dis tout simplement bon vent macha allah donc euh, pour mi mu wala expliquer kañ lañu ko jooñee wolof juste pour dire que mi weltima no feewi e journée o parce que wonko sikka no vraiment ko mbiyatan ko rek njorto o dañaama c'était une c'est une belle fête aujourd'hui donc hoɗon jaafo no feewi par que affaire o ça va tiré en longueur donc immiɓeɓe euh, to woɗɗi aussi minen ɓe jaafno e coono o e tout par que organisation mbaɗo ni lamdi ko vraiment ko ko doole lamdi ko cuusal lamdi ko fof donc surtout pour euh, waɓɓe déplacé gadi kadi taw min ɗo dakar maɓɓe fof heɗen ɓe jett no feewi kadi en beltima no feewi en jii han yimɓe ne gardi nooti han euh, e noddagal honorable député teddinde président makisall en beltima heɗen ɗon ñagano tan donc gurdam juɗɗam machallah